lu ëpp téeméer ci ay expert comptable taxaw nañu waat ci fi nga xam ni moo di tribunal bu Dakar yooyu les récipiendaires dugg nañ ci fi nga xam ni moo di ordre national des experts comptables et experts agréés di Sénégal. ni expert comptable bi su jàngee ba am diplôme dafa war a waat xam ne ñu xam xam ne lu muy def da koo teg ci indépendance maanaam amul par parloo ñu ñu waat tey ñëpp ñu nga xam ne ni jot nañu jàng ba am seen diplôme ba nekk ñu bind leen ci tableau ordre ñoom ñoo ñëwoon tey di waat. ci loolu yooyu la expert jël nañu engagement ngir doxal seenub mission fas yéene sukkandiku ci charte yi nga xam ne moom la seen profession bi di laaj. bu ñu waxee prestation de serment mooy yaa ngi waat waat ci lan waat ci ne lépp looy liggéey lépp looy def ci métier bi nii da ngay sukkandiku ci li nga xam ne ne moom lañ bind. teg ko balaa ngay signéeti balaa ngay génneeti benn document boo xam ne ñëpp mën nañu ko utiliser di nga xalaataat ah li may def nii tey jii est-ce que maa ngi respecté li nga xam ne ne moom lañ ma jox. ñu am nag wàllu wu rëy ci li nga xam ne moo di économie yooyu la expert ràññee nañ leen bokk na ci di xelal ñi nga xam ne moo di chef d'entreprise yi. ñu respecté lépp loo xam te ni yokk yoon teg na ko suñu kaw bu ko defee nag ñu ñu liggéey pour mën a wax. Euh, euh, ñii ñi di chef d'entreprise yi ñii di gouvernement bi ñii di ñii di ñi nga xam te dañoo bëgg dugg ci économie bi ak euh, ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñu leen ah lii kat li ñu tuddee bilang bilan bi kat baax na jaar na yoon bu jaarul yoon tamit dañoo war a bind ni lii kat baaxut. ñu leen di woowee itam auxiliaire judiciaire ndax seen taxawaay ci li nga xam ne moo di justice seen lim toll woon ci téeméer ak fukk ak ñaar ku ci nekk nag ci ñoom yëkkati na loxoom waat ci fi nga xam ni moo di cour d'appel.